doon lancé campagne propreté ci dakaar te acteurs culturels yi nag ñoo ko doon lancé tey pour jàppale ñu ci campagne de sensibilisation bi dakaar ville propre dañ ko lancé am na at léegi ñu ngi ci doon liggéey ba léegi yaakaar naa ne fi mu nekk nit ñi ñëpp xam nañ luy Dakar ville propre gisoon nañ association yi ni ñu jógee woon ñoom ñëpp ku ci nekk di nettoyer waaye dama ne nettoyer bañ a salteel moo gën ah te bu ñu continuer di def lii dakaar aussi def nañ fi ay millions yu dul jeex 2009 ba mill 2014 lu nekk def nañ ko Dakar ay camion camion ay millions ay mbalit yu ñu tibb tuuri teewul salte bi day dellusi kon fi mu nekk ñu ngi ci volet sensibilisation commencé nañ ko ci école yi acteurs culturels yi ñu ñu ciy jàppale pour population yi pour ñu changer seen habitude yu bon yi set moom yomb na torop boo setee sa biir kër set si sa quartier commune bi dana set kon may oo ñëpp di oo particulièrement jigéen ñi pour xam ko ñem ñoo yore kër yi ñooy seetal kër yi ñooy cuuraay kër yi nañuy dimbale gën a jàpp ci campagne boobu sensibiliser autour boo gisee ku sànni dara ci tali bi nga ne ko for ko mu jaral la xeex nag ak dem police te ma ne amande yi il faut ñu commencé waat ko parce que bu ñu dul def loolu sensibilisation kese mënul tax ñu am dëkk bu set nañu ci boole di sanctionner léegi xam naa ne dañ seet yan mesure la ñuy jël ak ministère de l'hygiène pour seet nan la ñuy def pour xeex tilim boobu ci Dakar yaakaar naa ne bu ñu defee loolu sensibiliser nit ñi bañ a salteel am ay poubelle bu ñu amee moyens yi fekkee ne les 19 maires ku ci nekk mën nga sa commune nga fexe ba kër gu nekk mu am benn poubelle defe naa ne mbalit mi dana wàññeeku mbalit mi nag bañ a salteel moo gën di salteel rek di bale di perte ay millions cet yomb na des petits gest rek boo koy def mun nga éliminer sax ay mbalit dootoo gis benn mbalit ci dëkk bi kon maa ngi oo ñëpp ci loolu ñu jéem a la poubelle yi wax naa la ko programme bi bu ko 19 communes yi adopte dana yomb ville de Dakar mun na def sur les grandes artères au plateau par exemple sur les grandes artères mais mënul ruq bu nekk mu dugg fa parce que nag léegi c'est des commune de plein exercice qu'on a kon commune bu nekk war nga mën a euh, fexe ba nu ñuy dajale ni ñuy fexe ba kër gu nekk am poubelle loolu yomb na defe naa buñ ci góorgóorloo mun nañ ko am. Hmm? sànq yaa ngi wax naan Dakar du lu verte woon waaye léegi dafa soppi ni ñuy def daal mooy jëmbat garab rek jëmbat garab yu bari aménagement yi mu rafet kon loolu moo ñu mën a dimbale pour dakaar amaat garab yu bari yooyu mu amoon Cap Vert lañ ko tuddee woon léegi nee naa leen dootul Cap Vert Cap Béton la mais bu ñu defee loolu ku nekk jëmbat garab sa wetu kër ñu aménager ay espace vert yaakaar naa ne dañ delloo Dakar na mu meloon il y a quelques années. yaa ngi waxtaan ci ci wàllu ci euh, mbirum euh, bi nga xam ne dañ ko téewoon ci wàllum tuur ndox ñu xool ne saleté dafa bëri façon. donc ñi di wër nga xam ne amuñu suñu tuurukaayu ndox dañuy obligé tuur ci tali bi parce que loolu aussi yan matuwaay ngeen ci jël pour nit ñi mën cee dabaru fekk duñu tuur ci gaanuwaay ci mbedd bi am ngeen ci ay matuwaay ci wàllu saleté gi. waaw <laughs> bu dee toilette publique yi ngay wax. surtout xalaat nañ ko. mais gis nga dama leen di waxaat beneen exemple xam naa ne madame le maire bii daal gis nga corniche bi chinois yi avec le service civique national may nañ ñu fa ñetti toilette publique ñu def ko ci corniche la doon de la corniche ñañ ko joxoon pour ñu koy gérer juróomi dërëm la ñuy laaj pour nga dugg ci toilette bi nit ñi nangu ñoo fay juróomi dërëm nan la ñuy def léegi. mais mun nga dem ci yoon bi fekk yoroo juróom dërëm sa poche aussi juróom dërëm mun nañ ko xeeb ci waxit pourtant tribunal ak feneen ak feneen boo demee boo buggee dem ci gànnuwaay bi da nga fay ñuy laaj loolu boo xam ne nit da ci euh, kii fekk du ci fayee dërëm waaw mais waaw du ci fayee dërëm xam nga loolu mun na nekk bu fekkee ne dem ngeen ba am toilette yu baree bare mun ngeen bañ a fayee mun ngeen jël personnel boo xam ne te loolu personnel yooyu ci commune yi la ñu mën a jël ku nekk nga jël ñu ne la toppatool fii mais loo xam ne juróomi dërëm wax dëgg yàlla sénégalais yi nag juróomi dërëm ñàkkuñ ko man loolu nangoo ma ko juróomi dërëm budget 2020 ah 60 et quelques millions démb nekk moo woon parce que maa ngi woon ci dialogue national donc euh, c'est à peu près 60 et quelques